Miss daa gàtt waaye Ameth a ngi continué ba léegi bien sûr oh top top top day ñam li ngeen rate Jaloor daay Jaloor dugal na Jaloor dugal na soo tëj daara ji li ngeen rate daa bari am na ku ko waxoon léegi ci commentaire yi buñ ko amee dañ koy dugal buñ ko amee dañ koy dugal boo waxee dugal dugaloo dañ lay dugal lu mat huit occasion de bi première mi-temps daara jàmm ko dugal ko deuxième mi-temps mu tàmbali ko dugal ko mais bu ko Jaloor amee da koy dugal Ndeysaan jërëjëfati coup franc bien placé tiré par le numéro 11 dugal na ko la ilaha illallah wop pop pop pop pop pop dugal na ko dugal na ko dugal na coup franc bi direct teet teet teet teet teet saa dugal na ko dugal na coup franc bi direct ca taax ya tot tot tot tot kii lim dugal rëy na de kii dugal na lu rëy rëy rëy ay ñuy def seet tot tot tot tot boobu lim dugal rëy na